waa feebar bi moom ah fan lañ tolloog moom Abdoulaye Diouf Sarr ci tribune yéen kaay waaw nee na jàppal ne mbir mi dee rëccagunuñu de déedéet la situation est sous contrôle waaw waaw yemu ca parce ministre bi nee na lépp loo gis nag il faut muy am kon ay rajo kankang de météo lambatu waaw maanaam spéculation maa la ko wax Abdoulaye Diouf Sarr ne waaye ñun ban intérêt la am ba war a nëbb dëgg gi askan wi la maire Yoff waaw daal di ne dellu si nag ci werante bi nga xam ne maanaam am na daay ci ñàkk jumtukaay yi nga xam ne nag am na kon ci hôpital yi daay te professeur Moussa Seydi daal di koy wax na ca Ziguinchor Abdoulaye Diouf Sarr ne fii coowal professeur Moussa Seydi fii ministère ba fee loolee amul xanaa xamoo bi ma ko gisee sax ci presse bi tuuti des ma ree Seydi ci biir équipe bi lée kilifa la bi te incha allah danañu am nag ndam ci kaw corona ji lée critique yéene kaa ne tasaaro bi nga xam ko ak ñaar la daane la gum Sénégal de Sénégal de jàppal ne soreetul nag maanaam kon junni mille cas la ilaha illallah te gis nga wàllum communautaire joojee ñi nga xam ne kon nañu koy dëgg te xamuñu fi ñu ko jëlee de danañu indil mbetteel de mu rëy tey communautaire yi communautaire yoo yee docteur Pape Moussa ci réew mi quotidien waaw nee ñi ngi yuuxoo ko jooyee ka naqarlu kon communautaire yooyee waaw te pourtant cas communautaire yooyee mais garaawul garaawuñ garaaw a la ñu soxla ah, liñ bëgg a xam daal feebar bi nan lañ cay fàggandikoo ba du la dal aku feebar fan ngay faju jee lii la ñu bëgg ba Moussa Thior moom docteur yi mucca ndaxte nee na gis nga ab docteur ci boppam waaw la ko war luñ dikk daal mooy dalal xelu malade ba koy daal di koy rassuré loolay dëgg waaye di ko diitale ko xañañal ak yooyee déedéet tamiñal roqee coor ba yemu ca parce que docteur Pa Moussa Thior waaw nee na erreur biñ a def mooy te jumaa ak ak église yi lée ak école bi ñuy def kon examen la waa classe d'examen waaw xale yi danañu jàngiwaat te le deux juin waaye xanaa premier mai moom du am suba fête du travail le quotidien yéene kaay ne ay doléance ay défilé den yooyee amul de Yassine Fall économiste de ci direct news waaw nee xam nga lan moo am président Macky Sall ci boppam kon moo war a ci président France fële di Emmanuel Macron waaw mu daal di koy transféré nag suñu koppar gi réserve financière yu Sénégal yéene kon ne moom la Sénégal yore ah moo ëpp fop li nguuru Sénégal gii dépensé ci wàllu njàng meeg njàngale mi lée wàllu wér gi yaram ak wàllum courant laa ilaaha illallaah ah Yacine Fall maa wax li lée économiste bi ne eh. ci Direct News waaw te États-Unis tey xam nga fan la jëm nii musibawu koom-koom di crise économique bu mel ni ba mu dundoon kon ca 1929 laa ilaaha illallaah Babacar Assane ah ci tribune yéeni waaw nee na politiciens yi ci boppam kon ñoom ñoo war askan wi lée ay famille yoo xamante ni ñi dee pour ñu lekk mardi taali mbir mi miti ci ñoom dar ba mel ni ti laa la wax Babacar Assé mu ca ndaxte nee na géejawaay kii laa leen di jox exemple gis nga lii bu doon jamonoy campagne électorale la ah, ah. kon ba léegi ni lée candidat yi ña ngay wujjee ci njëndumti si njëndumti seet lu ne ñu daal di koy dépensé waaye anañu tey gisoo kenn sentiruñu leen laa la wax man Babacar Assé kan man maa ko wax vox populi dee la mu wax comportement ak lu ni ne mën nañoo lor waaw président Macky Sall ah. daal dinay génnee karawaas ka dee waaw ñi nga xam ne kon dañoo dëgër bopp lool wax mënul ci ñoom dara yor seeni oto di daw ci diggante région yi lée ak marché yee bitig yi maanaam ak espace public yi waaw na yat wa dal rek 24 heures yéene kaay glace te moom président Macky Sall de ah génnee na yat wa dang daa la wax maar di tali waaw waaw ndax ngamadi goo xam ne kon ni ko nañ ko di wàllum indiscipline gi ñu gis na ci ñi nga xam ne dañoo yor seeni oto di daw kon ci diggante na ne ñooñee liggéeyu kontaanul ci ñoom de ku mel ni maître Oumar Youm Ndeye Saly Dieng Diop ak Aly Ngouille waaw liiral communiqué ba Macky Sall de seen domaine la ne nañ ko jubanti source aane benn waajoo xam ne daa feebar te wax na de jotu waa corona waaw nee na man daal ba ma génnee marché occas wàcc dem ñibbi ay booru minuit une heure du matin lañ ma woow ne ma da ngaa corona ma ne ah waaw te kat nekkoon naa ay nit ñu bari waaye nit ñooñee daal jëluñ ca kenn Ibrahima Sène ci libération yéeni kaay moom it feebar ba wér waaw nee doomu jàngoro ji lu doy waar la dangereux virus bi lee parce que man fu ma tollu waan dama naan sol ay gants di sol ay masque ba léegi ni la xaw ma fan la ma feebar bi duggee ak kañ la ma dugg waaye nag la ma ca jàpp daal mooy ñëpp a may daw commencé ci sama dëkkandoo bi enquête yéene kaay ne koppar gi nga xam ni kon dañ koo fas yéene jagle lay jasoraa ba dee waaw ña gën a ca moodu gi ceeb ak suukar seeg diwlin seeg loolee waaw Macky Sall daal affaire yi si la gën a sawar ne industriel maar di waaw waaw waaye ana CSS compagnie sucrière sénégalaise Sonacos NMA les grands moulins de Dakar ñëpp dañ leen a zappé daal di jël nag ñoo xam ni kenn xamu leen ak ay importateurs libanais jox leen Marseille grand place ne en tout de suivi ba dee te François Ndiaye jiite ko moo général waaw tey la seen réunion bu njëkk dee yéene lool ba ñu génnee ca musibawu guerre ba ana kiliyaanu banque yi lée grand place te seen avocat ba tey ka leen di xeexal Famara Ibrahima Cissé garde à vue nañ ko de mardi tali waaw dañ koo téye léegi ko yéene kaay ne ngir xoolaat na contrat wu dix yi lée ñu signé ci campagne électorale ba waaw ay avocat wu Sénélec ak avocat wu Akilee tey nag la ñuy dooraat kon négociation yi waat yéene kaay gi ne waaye xoolal ma Petrosen rek la fa xew par parloo yaa cadre Petrosen yooyu yée dañ leen a écarté ay nitu mataar daal la indi Bassirou Sall démissionné na ci poste su DRH ci Sénélec waaw ngir nekk fa secrétaire général yooyu eh Samba Ousmane Sow conseiller financier wu Sénélec de ab la léegi Petrosen Oumar Kandé jóge na Sénélec cinquante neuf ngir nekk nag léegi patron informatique gu kër ga moom lay si ko yéene kaay ba léegi ni ne de waaw ne ñu gis nga coowal licence de pêche ya teeree diñ ne tribunal de mardi parce waaw waaw ministre ba yemu ca di parce que Alioune Ndoye nee na journal la Témoin itam nañ ko ko ajalaat ñetti weer ba noppi laaj ko cinq cent millions <laughs> waaw góor Ndoye Mali Maram monsieur le léegi nag boo laajee la Témoin cinq cent ba pare nag ñu laajaaleel ñin askanu Sénégal gilée suñu xaalisu pétrole bi fan la toll duñ ko fàtte de parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat tam dañ ko fi